يجعل الكافر وليا والصلاة والسلام على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سباق الميادين ورضي الله عن الأولياء المؤمنين الذين كان لهم في رسول الله أسوة حسنة بكو جلت يني دقلو في سفينة FM 98.2 في كسكات إربام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجلن دي نيو دي زيارة دي بالو أقل di ñaan yàlla yal nañu yàlla boole baal di ko ñaan itam yal nañu nangul sunuy jaamu ca na mu toll te bañ koo nangoo ci ni ñu toll tabaarakallaahu di nuyu sunu wëllëre sunu xarit di sunu soppe di Ceerno na Yoro Bane nga xam ni liggéey bi moom moo ko taxawal ngir yàllaak tabaarakallaahu yeete ngir yàlla ak jàngale ngir yàlla ak jottali kàddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy ñaanal yàlla tawfiq ko ñaanal yàlla wér ko ñaanal yàlla yokk ci zaahir ak ci baatin ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ki nga xam ne tabaarakallaahu mooy suñu directrice di soxna ñi ba tabaarakallaahu du ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla defal ndam ci liggéey bi nga xam ne dénk nañu ko nuyu suñu technicien tabaarakallaahu xaaj euh, Maxtaar Dieng njaay ñaanal ko yàlla yal na ko yàlla defal barke ci li muy liggéey nuyu nag suñu xarit suñu doomu ndey di suñu wëllëre di tabaarakallaahu Seyid Bàcc Ndiaye ñaanal ko yàlla moom itam taxawaayam yal na ko yàlla barkeel suñu waxtaanu tey nag ñu ngi jëm ci mawdu bu am solo muy li ñuy wax sujet muy li ñuy wax tasawuf muy soufisme wolof gën ko miin ci sufiyankew moom tasawuf xëy baat bi baatu arab la kenn ku ne ak na ko firee ñuy wax nañu ni cosaanam mi ngi jóge ci baat bi ñuy wax as suuf muy leen ndax tisi la boo xam ni taxu ko am solo noonu seerul te tabaarakallaahu lu nit ñàkk-ñàkk jàpp nañu ni war na ko mën a am ñenn nañu ni baat bi foofu la jóge loolu yëpp li muy wane rek mooy ñi ko daan jëfandikoo moom tasawuf dañu daan woyafal seen bopp ci wàllu àddina daawuñu col col guy dellu ci wàllu puukaréew looloo tax ñu delloo baat bi ci ñoom te loolu mën nañ ko nangu ndax yent yàlla isa alayhi salaam waxoon ni man isa day libaasi as suuf mu ni limay isol sol amul solo ndax len la muni wa taami ash-sha'ir muni sama ñam itam muni ni ndax pat lay dunde wa siraji al-qamar muni sama lamp itam neena duma ca fay dara ndax wër yu moy sama lamp momay léral wa dabati rijlaya muni man isa sama way moy sama ñaari tank. aw ma beneen bu budul ñaari tànk yi wa wisaadati ziraa yi mu ni sama njeganaay itam mooy sama loxo fu ma sonne rekk wiir sama wet jël sama loxo jeganoo ko nelaw mu ni léeg-léeg danaa dem bay tëdd sama poche dara ci nekk lu ma war a xëyaale pour dund mu ni léeg-léeg dinaa xëy te poche bi dara du ci nekk lu ma mën a dunde mu ni waaye kaw suuf nag xawma ci doomu aadama yi ku ma gën a oomal man Isa ku ma ëpp alal tabaarakallaahu kon kooku bu ñu nee mutasawif la lañu mën ko nangu su ko defee am na itam ñu wax ni moom tasawuf mu ngi jóge ci groupe boobu ñuy wax ahlu sufa nga xam ni ñooy foqaraa u saxaaba sahaba yi andon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ci ñu neewon doole ci walu am-am waye tamit di sédd sen ruh ci walu jaamu yalla ba faf dem dekk ci jakk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour mën a wéet pour mën defar seen nit ñi di len fa fekk ñi len tané di len dimbali ci walu am-am. am nañu wax ni baat bi foofu la jóg ci ahlu sufa waaye ak lu mën a am baat bi ci boppam amul solo li am solo mooy li baat bi ëmb te mooy li waykat bi wax ni laysa tasawufu lubusu suufi turaqicuhu wala bukaa'uka in ganna almugannuuna wala siyaaxun ولا رقص ولا طرب ولا اضطراب كأن قد صرت مجنونا بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا أي كاتبين أنا سفيان كو nekkul ci sol yére yu ñàkk solo di wane ni danga nga àdduna dem ca ba yére ba sax su xottee ko ko sànni waaye dangay wut puso ak wuñ di ko daax ngir wane ni àdduna safu la nee na loolu nekkul mooy tasawuf nee na tasawuf itam nekkul ci bu ñuy woy di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baa ñuy tagg sa sëriñ ngay jooy di tuur say rangooñ nee na loolu du suufiyankew nee na itam wala siyaaxun nekkul itam di yuuxu di fettasu wala raqsun nee na itam du fecc ñu koy gisee ci cérémonie yi jëm ci wàllu diine ñuy tagg yonent bi mbaa ñuy woy sëriñ si nit ñi di daanu di yuuxu di fett soog di fecc wala tarabun eh, nga nekk fay tëb di dal wala tarabun ak di daanu di yuuxu ñu naan dafa daanu xaal dafa daanu leer na ne ah boobu day tasawuf xamu ko waa ji nee na ka an qad sirta majnuuna mu ni nga di ko def mel ni ku xel mi yembadi kon moo lay wan ni la loolu du wane ragal yàlla ci xol mu ni waaye tasawuf nee na an tasfu bila kadarin nee na mooy nga fees dell ak ragal yàlla fees dell ak leer fees dell ak njub ba noppi teey nee na ni ngay gisee ndox mu nëx ni jox la ko nga war ko naan nëx bi tax nga teg ko ndax bëggoo ndox mu nëx dangay ngay bàyyi ba mu teey nga dog ko jëfandikoo walla fa wax na ni teey baax na ci ndox waaye ci nit lañ ko gën a taamoo ñee na tasawuf dëgg ñee na da fees dell ba noppi nga teey nag nga dal wa tatba al xaq nee na nga teg sa tànk ci dëggu yàlla fii nag dañuy jaawale xam dëgg ak mën a wax dëgg ak dëgg bokkul nit dana xam dëgg nit dana mën a wax dëgg te fekk dëgguwul nit ki dëggu mooy nit koo xam ni su ko dëggu yàlla dabee mu nangu ko ko koo dëggu moo tax mu ni nga teg sa tànk ci dëgg nee na di jëfe alquraanul karim di jëfe sunna yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na moy tasawuf nee na ba ca des itam bàyyi xel yàlla gi ngay bàyyi xel yàlla tax ku la gis li ñuy wax naan bo toge ci nen du toj ragal yàlla bàyyi xel yàlla fàtte sa bop di teewlu yàlla ba so togon ci xottu nen du toj ndax nekkato fi ndax rek bàyyi xel yàlla nee na boole cag nag foo toll yaa ngi tiit ngir say mëtëdi ak say bàkkaar yi nga xam ne yaa ngi koy feeñal ci kanam yàlla subhanahu wa taala waaja daf ma wax ni ma man day at sàngam ba nëgëni defuma fi lu ñaaw defuma fi bàkkaar moo na samay mbir dafa dëgër côté bu ne maa nga fay jaar waaye dara sottiwul ma ni ko juum nga ndax ko zambun laa yuqaasu bi zambin ma ni ko nit ku taxaw di wax ni awma bàkkaar ma ni ko sag nekk rek sa dund ci kaw suuf rekk bàkkaar la ndax yàlla ngi lay dundal te waru ko yàlla ngi lay sàmm te waru ko yàlla ngi lay wodd te waru ko yàlla ngi lay defal lépp te dara waru ko ci ndax yàlla dara waru ko te nag mag ku ko teg lu ko warul bakkar ga moo tax ma ni ko loolu njuumte la loolu day ku xamul yàlla mooy waxe noonu waaye ku xam yàlla dana xam ni ak nekkam ci àdduna rek bàkkaar gënu ko mag nee na loolu mooy tasawuf al imam al junaydi radiallahu anhu wax ni tasawuf an yumiitaka alxaqu anka wa yuxyiyaka bihi nee na sufiyanke wu dëgg mooy dem ci fàtte sa bopp ngir bàyyi xel yàlla di teewlu yàlla ci sa bopp nee na di dem di jox sa bopp yàlla ba fafi yow dootoo exister rey nga sa bopp éliminer nga sa bopp ngir lan ngir yàlla subhanahu wa taala rek moom mooy ki nga xam ne ki moom moo fi nekk nee na su ko defee nag soo àggee foofa nag ba seey ci yàlla dootoo dee ndax yàlla lay yóbbaale géew nee na loolu mooy tasawuf kon nag ñu xam ni tasawuf nekkul ci di sol yére yi xotteeku di dox di yoot guddal kurus di di wax di onk di lekk mburu mu wow eh, di naan ci ndox yu yu yu ndox yu nëx yi loolu du tasawuf tasawuf dëgg sa ruux ngay sédd ruux nag boo ko dee sédd da ngay xañ cër yi ci des yépp ba ruux séddu ba noppi ko defee nga doog a sédd yeneen cër yi am na sax ñu ko tënk ci tënk bu rafet tabaarakallaahu ñu wax ni tasawuf ñu ni taagi mooy taa ut tuqaa taagi mooy firi ragal yàlla taqwallaahi ni ragal yàlla nag firiwul ni danga koy ragal comme ni ngay ragale gaynde gi fàdde waaye ragal yàlla mooy bàyyi xel yàlla fi nga xëyee ba fi ngay tëdde rus nga fi def wala nga wax lu la yàlla di jëppi tax nitu yàlla yi tënk ko ci imtisalul awamiri wa jitinaabu nawahi min xaysu yarda la min xaysu tarda li ñu ragal yàlla ki ko def dëgg mooy kiy jëfe santaane yàlla yi di bàyyi li yàlla tere te du ko defee ni neex bakkanam waaye da koy defee ni ko yàlla santaane loolu mooy ragal yàlla tax sayidna aliyin karamallahu wajha doon jàngal sayidna al xusayn radiallahu anhu ragal yàlla nan la war a mel mu ni ko ragal yàlla dëgg da koy def fil xaybi wa shahadati mu ko ragal yàlla su dëggoo ci nit fay dem ba melokanam su doon tissu la dañu naan tissu bi amul bir amul biti boko joxe joxee bi sax dina jaxla ci naka la ko wara parce que amul bir amul biti côté yëpp yam lolu lu mu firi moy wete ragalé yalla deug so wété ak so wetti lu ko moy yam ci dafa ñëw ànd ak mbokkam e, seen sëriñ Babacar Sy radiyallahu anhu mu toog ci saal bi moom rek mu ngi sëgal loos wi e, téye yaramam yaru ci façon boo xam ni naar bi di xool ndax saal bi dafa am ñeneen ñu fi nekk ñu tax góor gi mel ni mu mel walla déet mu xool xool gisul kenn ci saal bi mu wokk moroom mi ni ko waaw kii nu mu mel nii lan la moroom mi ni ko li annahu yataaddabu ma al xaq mu ni ko yàlla mi ko sàkk te tiim ko di ko xool lay bañ a def benn gest bu ko yàlla di jëppee moo tax mu yaroo mu yaroo tax ragal yàlla dëgg soo wéetee ak boo wéttilikoo ñoo ci yem ndax Seydina Aliin ca xasiidam bu bu rafet boobu tabaarakallaahu منف عليك تقوى الله فالذمها تفز إن التقي هو البهي الأهيب واعمل بطاعته تنل منه الرضا إن المطيع لربه لمقرب مني ما لي دينك nga wut mbubam ragal yalla nga sol ko mune ko ndax ma di la xamal te leeru yàlla nag ku ragalul yàlla doo ko am mu ñu ko maa ngi lay dénk itam yow mi nga xam ni yow ay jullit bi nee na foo tollu del topp yàlla ndax inna taqiya huwa albahiyul ahyam wa amal bi taatihi tanal minhu rida inna almutia li rabbihi la muqarrabu mu ni ko ndax ma yëgal la ni ndam mu ngi ci foo tollu di gën di jege yàlla mu ne yàlla nag soo ko dul topp doo ko jege mu mel ni ñun nag dañuy jaawale jaamu yàlla ak topp yàlla sew sew moo leen tàqat li so xasee bay julli yaa ngi jaamu yàlla soo dee woor yaa ngi jaamu yàlla soo dee natt adaka yaa ngi jaamu yàlla sooy dem makk sooy jàng alquran yépp yaa ngi jaamu yàlla waaye nag topp yàlla mooy li tax julli gi jóg nga fexe ba loolu nekk ci yow mooy inna salaata tanha an il fahshaai wal munkar la nee na kii julli dëgg dina dem ba dootul mën a wax lu bon dootul mën a def lu bon kon koo gis mu dëkk ci jàkk ba noppi te dëkk ci wax lu bon ak def lu bon mi ngi jaamu yàlla waaye toppul yàlla laayokat bi wax ni tanha anil ilfahchaai kullu salatihim illa fa kullu salatihim fahchaau ni julli su mënatul dox sa digganteeg def musiba nee na julli ga day yokk sa musiba ndax yaa ngi tuumaal yàlla mu ni saad gi ci des mooy saadu safa saat gi mooy firi sell dana sell dana nit war na góorgóorlu ci moytandiku yi yàlla tere ak jëf li yàlla sentaane di di di di ci góorgóorlu ba yëg ni jukkoom defaru di ci góorgóorlu ba yëg ni lépp luy tilim tilim loo xam ne lii bakkan moo ci yóbbu nit loola fekk sell na ci sat na ci wecc mu ni bi ci des mooy waaw gi nee na waaw gi mooy waawul wafa mu tël kóllëre nee na ñun ñëpp jël nañu démb ci aalamul arwaax engagement ci kanamu yàlla subhaanahu wa taala mi nu sàkk bi mu dajale suñu ruh wax ni alastu bi rabbikum kan kan ngeen di sédé ngeen di nangu tay ni mom moy sen borom ndax am ngeen keneen ku ngeen ko ku ngeen ko kudul man yalla ñu ni ko déedéet yow la comme nangul nañu ko nak ci alamul arwah war nañu kolere gogul ñu ak yalla bu ñu dikkee ci kaw suuf ñu sàmm mooy bu nu wut beneen yàlla bu dul yàlla alquran di wax rekk moo ci nekk nit dana dem ci sàggan topp bakkanam ba bakkan bi doon yàllaam maanaam li ko bakkanam xiir rekk loola lay jaamu te loolu mi ngi dellu ci fecc kóllëre mu ni faagi gi mooy faa ul futuwati al mooy jukko mooy jom joo xam ni njàmbaar moo la ko may danga teg sa bët ci ku baax ku mel yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbaa ñi ko donn ñi mel ni moom ci ci wàllu roy nga fas yéene bala ngay bàyyi mel ni ñoom ngay góorgóorlu di noddonti sa bopp di defar sa jukko ba xëy vertu yëpp nga dajale ko ci sa bopp muy makaarimul axlaaq nga ne kon lu mooy faaul futuba ci muy tasawuf kon fa tabaarakallaahu mu nekk baat boo xam ni miin nañu ko ci làmmiñ waaye nag war nañu ko di waxtaane su ko defee ñi nga xam ni ñoo koy dégg mën a xam dëgg-dëgg tasawuf mooy lan damay wax ni moom tasawuf am na ñu ci sóobu defaru ba mel ni yàlla bëgg ñooña dontelee yàlla suñu borom jël na seen jëmm ñu jël seen jëmm rob ci biir suuf itam seen ruux suuf munu ko téye seen tur suuf munu ko ëmb ba ba yàllay taxañ àddina bi di yóbbu seen tur dana fi des seen jëf dana fi des ndax sedd gi ñu séddoon seen bopp yàlla kon ñoom réussir nañu seen dugg ci tasawuf waaye itam beneen kuréel a ngi boo xam ni soobu nañu ci donte lekk nañ ca ñam wu neex naan ca lu neex sol ca lu rafet dëkk ci fu rafet loola lañ ci am bëccëg bu ñu leen di rob ci biir suuf la seen tur di fay ba faw yal nañ ci yàlla musal ndax dañ ci sóobu te jaaruñu ko ci yoon te loolu nag bare na lu mu mën a yàq moo tax yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu dee seet ci wàllu tasawuf ci wàllu lislaam mooy ki ko njëkk a def lu jiitu yàlla di ko yónni téere yi waxtaan ci wàllu taarix yépp saxal nañu ni daan jël ay bés ay waxtu di wéet ci xaaru xiraa pour lan ndax li mu gis ci pénc mi Makka wóor na ko ni lii dëppoowul ak dignité jullit bu bëgg ëllëg nga làq ngërëmu yàlla li mu gis ci xeetu fo xeetu topp sa bakkan xeetu caaxaan xeetu sédd sa yaram bàyyi sa ruux mu wóor ko ni lii taxul woon yàlla bind jaame te moom am na lu mu yëgal boppam mooy ku bëgg yàlla fees ci sa biir xol faw nga nangu sa bopp ci nit ñi mu daan dem di wéer ci xaaru xiraa ngir jox boppam yàlla subhaanahu wa taala kon moom ci wàllu lislaam moo njëkk a def tasawuf mu mel ni tam li ko yàlla subhaanahu wa taala tagge ci alquraanul karim yóbbaale na ci ñu bare ci njabootam xoolal ku ci mel ni Abu Zar al Xifaar yi nga xam ni Xifaar famille lañu bo xamni dañ leen minone ci walu tiaxan walu addu kalpe walu agression bo soné rifar la bok rek ñëpp moytu la abu zarrin jóge fa ñëw jox bopam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi initié ko ci lolu ba mu dem ba ila yawmin nafkh fi sur turam dotul fay ndax naw gi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naw ak defar gi mu defar bopam ci wàllu jonjoog leeru yàlla subhaanahu wa taala ku ñuy wax Suhayb bin Ruumi ak Xuzayfatu bnul Yamaani nga xam ne Xuzayfa ku jëriñoo turu yàlla gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekke formule ba Seydina Aliyin tëgg ko Xuzayfa mo tëgg formule ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal na dem ba di jëw nan huzaifa du yonent waye dina jot wahyu pour wax la ni la kon sell na set na ba yalla ng koy yalla ngi déeyoog mom te ñu bare yëguñu ko tax su masaana àddu rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni len bay len xel ci wax huzaifa ndax da fay recevoir wahyu ku melni Abu Darda Abu Hurayra radiyallahu anhu موم ابو هريره رضي الله عنه كنا من نكتي والو حديث جمار لتي كتي سيو لتي يتم مدان وخنان حفظت من رسول الله وعائين من العلم أما أحدهما فقد بستثته وأما الآخر فلو بثثت به لقطع مني هذا الحلقوم من التعتان ناتي ينتبي صلى الله عليه وسلم نياري ندبو خم خم بي خم خم حديث لا خم خم دين سنة لا والو أتي مني لما تي جلي تي مم يب سوتي ناكو بي نيب جوتي مني واي أمنا بنين ندب نك بوما تي ينتبي صلى الله عليه وسلم boo xam ni su ma ko sotti woon daañu ma tër rend ma ni ma yow yéefar nga yonent bi waxul lii moo lay wan ni la mbir mi am na leneen lu ne ci biir loo xam ni am na sax ay boroomi xam-xam ñuy di naan yonent bi sallallahu alayhi wa lépp lu ko yàlla jox amul droit garder ko génnee na ko jox ko jaam yi waaye seen xàmmee moo ci yeggut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu ko yàlla jox te fekk dafa génn xaarij an nitaaqi taklif bokkul ci li nga xam ni dafa jëm ci wàllu atte am na ca loo xam ni lii génnewu ko pour ñëpp daf koy garde pour ña nga xam ni seen déggin àgg na ca mu mën ko wax ak ñoom moo tax alquranul karim naan fa awxa ila abdihi maa maa awxa maa googale moo lay won ni la yàlla su boppam sax leeralul la mu jëy yonent bi lan la nëbb na ko baatu maa googu moo lay won ni la secret la fa la yem maa awxa yàlla xamal na ko loo xam ni du pour ñëpp am na nag ñu ci seen déggin àgg bu su wéeteeg ñoom mën na leen ko déey moo taxoon saxaabi bi di wax naan ñaarelu ndabu xam-xam bi ma doon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su ma ko génnee woon ñu ray ma ni ma yéefar nga ku batin la ak keneen ku mel ni al alxuzaayi ak ñeneen ñu mel ni ñoom gis nga ni ñu daan defee tasawuf jaamu yàlla taxoon na ñu daan leen wowe az-zuhaad mooy ñi dëddu àdduna ولانا سيد شيخ احمد تيجاني سي المكتوم Maktoum dafay wax nit ñi xàmmewuñu ku dëddu àdduna ak ku àddina dëddu mu ni bare na ku wax ni dangay ngay dëddu àdduna fekk àddina moo la dëddu dem ba jamono metti sa kaw lekk yomb la naan yomb la solu yomb la nga ni da dëddu àddina fekk àddina moo la dëddu mu ni waaye dëddu àddina dëgg ki ko def mooy ki àddina wuyu si mu teg ko ci gannaaw loxoom kooku moo dëddu àdduna moo tax ñoom ñu daan leen woy ak zuhaad léeg-léeg itam ñu woy leen al ubbaad muy jaamukatu yàlla yi mbaa an nusaak maanaam sufiyanke yi wala al al al al al bakaa'iin dina wooyee jooykat yi ñiy jooy dëkk ci jooy fu ñu toll ngir ragal yàlla ak bàyyi xel yàlla seen borom ak jàpp ni seeni bàkkaar dem na ba mel ni géej ci kanam yàlla subhaanahu wa taala mel ni li sunu maam Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu anhu di junj lan tamawwaja al baxru baxru dëmbi yaa siqati wa inna ni rabbi xiftul garqa yallaahu ko yàlla sama géeju bàkkaar mi ngi duus ñu ko mer na duus yaa ngi dóor ba soo jàppul ci sama loxo dinaa lab ci biir bàkkaar yi وما السفينة ترجى غير رحمتك العظمى العميمة كل الخلق يا الله يكو في ما نك ني تي بير جيجو بكار جي يا كارو ما جيف يا كارو ما تي لن لودول سا يرمندي بودول سا يرمندي رك ني لاك نيب تي بير جيجو بكار البكاء من خشية الله لما دم باي جوي غير رجال يالا ليك ليك تام ني دال لن ووي الوعاظ ما fu ñu ak nit ñi rek ñu ngi leen di delloo ci yàlla ñun ñu koy tudde kat ku defee kon moom tasawuf boobu ñu gis ni mi ngi siiwee nag mi ngi feeñe dëgg-dëgg ci alqarnu saani ci deuxième siècle deuxième siècle boobu nga xam ni gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak alxilaafa rachida nit ñi dañu dal di nekk ay buur commencé di falu dal di nek dëgmal àdduna ci xeetu wut alal xeetu noos xeetu top sa bakkan ba ñi nga xam ni ñoo daan ñoo dese woon ak sell ak jaamu yàlla ci biir saxaaba yi ñoom dal di dem nag ber seen bopp ngir sóobe seen pas-pas ci wàllu yàlla foofa nag la tasawuf feeñ dëgg ko defee ñoom ñuy moytu lépp lu laal ci wàllu nguur nag ak caaxaan yi siiw ci wàllu addina wutum alal addina tere la nelaw ñoom ñu jël seen bopp nag pour delloo ko ci yàlla nag foofa nag la tasawuf commencé di siiw nag di tasaaroo. defee nag ñooñu nga xam ni ñoo jóg nag ci deuxième siècle bi nag gën a siiwee nag wàllu sufiyanke dem nañu ba lépp lu fuqaha yu bind ci wàllu fiq pour delloowaat nit ñi ci cosaanu fiq lépp lu ñu bind ci wàllu firi alquran wàllu xadiis ñoom sufiyanke yooyu tamit Dan nañu ñom tamit di bind ci wàllu sufiyankewu pour wané ni domaine la bo xamni dafa am ay règle pour bañ ñi nga xamni ñu ngi koy song di ci dugg bañ réussir bëgg gi ñu leen bëggal buñ ci ag ci ca way ba mo taxoon ñom itam ñi bind ci walu tasawuf di ko di indi charte tabarakallah ngir bax ke njabot yi nga xam jamu yalla subhanahu wa taala mo nek seen yitte mom tasawuf dal kon ñu gis ni limu indi ci walu selal bakkan li walaf di wax ni la ka macc xam te bakkan amna doole am doole go xamni ni lu ko ëpp doole rek moko mëna tagati gisee alxuraan di wax ni wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha bakkan dañ koy tàggat soo ko tàggatul rekk soo ko waree mu jëmale ci kàmb musiba looloo tax doomu aadama ñaar yi nga xam ni ñoo ko seq muy yaram ak ruux yaram bi di madde li ñuy wax matière ruh bi di anti matière moom jawhar la ñoom ñaar dañu dëkk ci bëri ku ne bëgg daan sa morom yaram bi bëgg nga jël sa temps yépp jox ko ko ci set ci sollu rafet ci tëdd fu nooy ci nooflaay ci ci li neex bakkan lekk naan fo loolu la yaram bëgg moo tax moom yitteem yëpp dafa jëm ci wàllu rabe moo tax yitteem yëpp mooy dominer ruux pour mën a dunde ak liberté ruux itam di bëre ak yaram ndax li ko yitteel moom ruux mooy ñu sedd ko kàttan ba muy man léeg-léeg muy naaw di dem di delluwaat ci xadratul quds ba mu jóge woon di déeyoo ak yàlla subhanahu wa taala di dellu siwaat ci kaw suuf di àndaat ak yaram mu tax ñoom ñaar ci bëre lañu dëkk bu defee nag doomu adam su bàyyiwul xel boppam sedd ruuxam lu ëpp li muy sedd yaramam du yàgg bay ruux bi mën a dominer yaram nag lii mawlaana sayid cheikh ahmad tijani si wax ni alchurbu wal aklu shahiyu wa ladatun wal jinsu nee na mawjudun bi dilli ximaari nee na lekk gu neex naan gu neex soxna su tey sa bakkan nee na boo ko tiitaroo yow nit nee na mbaam tiitaroo ko lekk nga sa ceebu jën ba sa xol sedd mu lekk ci ngooñam ba xolam sedd ngooñam moomu moo ko dàqal sa ceebu jën nga naan ndox mi la gënal walla boisson bi la gënal ci boisson yi moom itam mu naan ci sebet mi ba xolam sedd ndoxam moomu moo ko dàqal sa boisson jigéen ji la yàlla booleel mu lew la ngeen ànd ba seen xol sedd moom itam am na beneen jigéen bu ko yàlla booleel moom itam mu dem ca ba xolam sedd li nga dund la la dund yàgg moom benn ngeen ci wàllu rabe da nga rabe mu rabe léegi nag li la mën a séparer ak moom mooy soo ca pare nga daal di gaaw fëx delluwaat ci yàlla subhaanahu wa taala sedd boobu ngay sedd sa bopp yàlla di ko wan ni ko jaam laa mëta di mooy sama cër waaye nag ci yow laa xaj wala tax fu mu mën a dem ci yow laa xaj suma ma noppee dellu siwaat ci yow nee na boo deful loolu rek du am lu lay wuutale ak bàyyi may yéen yem kenn kon ñu gis ni ruux il faut ñu sédd ko waaw looloo tax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam réussite bi ko ci yàlla defal amul benn doomu aadama bu ko mën a am ci kaw bu ko mës am ci kaw suuf tax góor gi tàggu ko wax ni qad mala ad daarayni hada diin saadatan wa ilmuhu yaqin ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diine gi mu indi nee na benn xeer la bu jam ñaari picc nee na diine goo xam ni defar na àddina ba boo gisee ki gëm yonent bi dund jàngalinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar ni kii buur la dootul dee waaye ak loolu muy teral adduna bi yëpp soo ko fekkee mu wéet di jaamu yàlla da ngay yaakaar ni malaaka la mu tënk ko ci imal li duniyaaka ka annaka taayishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gadan ni ku la fekk ngay sonn ngir teraanga àdduna nee na na la jaawale ku yaakaar ni day dund ba faw dootu fi jóg waaye nee na tamit ku la fekk ngay jaamu yàlla na jàpp ne yowkat danga jàpp ni léegi ci ay seconde ci ngay wuy yàlla sa borom xam ku ñu ni woon tey suba ci tisbaar ngay wuy ji yàlla fileeg suba ci tisbaar di nga jaamu yàlla loo xam ne malaaka sax lott na pour def ko mu ni loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko réussir fexe ba seexale àddina ak àllaaxira ngay dund di yëg teraanga yàlla ci sa kaw waaye tamit yàlla yëg ni jox nga ko sa bopp ak lu teraanga ji bare bare bare alal du la démoraliser amul benn confort booy dem ci àddina ba mu démoraliser mu ni wa jaa bil mabadil aliya siyaasatan wa millatan saniya diina yonent bi sallallahu alayhi wa rek moo indi ay principe yoo xam ni mooy principe yi gën a kawe ci principe yi nee na bu dee wàllu politique tëralinu doxalu àdduna nee na anam ba gën a yelloo teraanga doomu aadama la lay diine ji ñaan pour nga yéeg ba ferankalaayu ci kaw waaye tam bu dee wàllu jox sa bopp yàlla wane ni jaamu yàlla nga nee na anam bi gën a kawe لالا يالاي خاري بور نو اغ فا فرانك ونظم المجتمع المختار لا ظلم فيه لا ولا انكار يننتي بي صلى الله عليه وسلم مو اورغانيزي سوسيتي بي دا فا فك نيات دي خلو كو نيك نان ماي جيتو وفك روح نينا اك جوكو نينا اك li ñuy wax madda muy matière ñoom ñett ñuy xuloo mu laaj leen lu ngeen di xuloo ñu ni kenn ku ne li nga bëgg mooy jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen bàyyi leen ma organiser leen ko su ngeen bañee seen nekkin ci kaw suuf ëllëg ngeen koy regretter ñu ni kon nu mu ko organiser sayid Cheikh Ahmad Tijani si wax ni wa qaala li ruuxi taqaddami ولا تلتفتي لغير من سمى على وقال للأخلاق فلتتبعي سبيلها من دون أن تبتدعي وقال للمادة فاخدميهما ولا تخالفي الحكيم فيهما من ينتبه صلى الله عليه وسلم نيلين نروح جيتو ndax من جيجة حضرة القدس moo xam li sell moo xam li set moo xam li yàlla bëgg ak li yàlla bañ kon moom su jiitoo rek lépp lu ñu dëkkmal bu ca ngërëmal yàlla nekkul rek daf koy rejeté mu ni waaye nag pour ruux tamit am kàttanu mën di rejeté li neexul yàlla na ci jug ko topp moral ñu ndax ruux su doon solu ñu ni kon jukko ju rafet vertu yi ñuy wax makaarimul la moom lay sol ba tax du am kersa ba tax du néew doole ba lépp loo xam ni bëgg na ko rejeter parce que neexul yàlla rek dina am force mën ko rejeter kon ko mooy dimbali ruux mu ni kon na ko jël deuxième position mu ni waaye matière yow nag toppal ci seen gannaaw jëlal troisième position te nekkal seen jaam pour nag matière mën a nekk jaam bi faw ruux ñu seddu ko faw yi tamit jukko ñu defar ko su ko defee doomu aadama nag su ruuxam séddoo jukkoom defaru àdduna mooy wëlbatiku daw topp ci gannaawam waaye moom dootul topp ci gannaaw àdduna wala tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam organisé ko noonu mu ni nag walam yaku fi zaaka lil insaani xadun bi duuni al ilmi wal qurbaani hada bi aqlihi wa daa bi fitratihi nuuraan yahdiyaan naxwa xadaratihi ni nag pour nit mën a séddu ci lii nag defaru ci nee na ñaar ak ko mën a may ñu xam-xam bu wóor waaw ak jege yàlla mu ni bu dee xam-xam bi li la koy mën a may yàlla defar na la te mooy xel yàlla may na la xel li ñuy wax al aql muy intellect première nee na kon soo jëfandikoo xel mi rek mën nga dem ba ci wàllu xam-xam lu lay jariñ àddina ak àllaaxira nga téye ko ci sa loxo nee na beneen bi nag bi fitratihi fitra mooy li ñuy wax intuition mooy leer gi nga xam ni ku yàlla bind rek daf la mooñaale ak moom wàccewaale la ak moom muy lumière boo xam ni su fekkul woon àddina ak tilim tilimam àddina ak obstacle yi nit di joñ njool ba léeg-léeg leer googu di wàññeeku bu dul woon loolu kon yàlla mën na bañ a yónni yonent ndax fitra bi dana giide doomu aadama xamal ko li yàlla bëgg ak li yàlla bañ ba teeral ko ci kanamu yàlla subhaanahu wa loolu mooy fitra ndax yonent bi sallallahu alayhi wa di wax ni ويجر موي ريسبونسابل يعني كل مولود يولد على الفطره كجد رك جد على ليرو توب يالا فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه يعني سنياري ويجر نك نوي دم با دوغل اليهوديه ولا النصرانيه ولا المجوسيه يعني كجد رك يالا مو نيالنا اك بوبو ليرو كون نيت pour mu nite il faut ruuxam séddu aywa la waajo wax ni fa anta bi ruuxi laa bil jismi insaanum bu ngi naan ana nit nee na mooy nit ki nga xam ne ruuxam dominé na yaramam kookoy nit kooku mooy nit te loolu danga koy gis sax ba ci wàllu bouddhiste yi dañuy wax ni nit warul sàggan ba yaramam dominé ruuxam ndax nga gis ñoom pour ñu seet ndax réussir nañ ko wala réussir ñu ko dañuy concentré wu sotti seen bopp essence taal seen bopp du ñu xef du ñu wokkatu du ñu raf takk ba jeex te yàlla taxul kon su ko nit demee ba di ko essayer di ko réussir te yàlla taxul kon loolu damay wax ni ki gëm yàlla subhaanahu wa taala moom ci moom la gën a jekk te mooy léeg-léeg nga war dem bay natt sa ruux ko sa yaram ban mo ci dominé al imam shafii radiyallahu anhu nek na ci jakam di jite julli jaan dugg ci bir jàkka ji ñépp génn jàkka ji te yeguko mu jite ba ni assalamu alaykum ci walu nday joram jusul kenn ni assalamu alaykum ci chamon jusul kenn mu doga xamni xam jàkka ji nit ñi génn nañ ko bu yàgg mu laajte ñu ni ko jaan moo duggoon ci jàkka ji ñëpp génn xam nga ni kooku bi mu ne allahu akbar di julli ruux ba dem na ca xadratul quds foofu ruuxam moo domine yaramam moo tax lépp lu yaram di yëg yëgatu ko ma nga ca kaw loolu yonent bi sallallahu alayhi wa fexe na ba réussir loolu moo tax lépp loo gis nag nit def ko réussir rek nit def na ko te réussir ki ko def réussir daf koo xam xam nu mu ciy dugg xam waajtaay yi ci war xam charte yi tabaarakallaahu topp ko benn par benn ba réussir ci fi nga xam ni tamit dugg na ci nag te réussirul daf ca dugg te jàngu ko xamu ko mu dem caa dem ba au lieu mu am ca ngërëmal yàlla waaye faf mu mujj ca am njëppital yàlla subhaanahu wa ci yàlla musal moo tax Seydina Cheikh Ahmed Tijani di wax ni moom Seydina Cheikh mi wax ni njalbeenu këru nitu yàlla boo gis ñe ne njalbeen ba yàllay kese la nee na digg ga nguur la nee mujj gën a kufru la weddi yàlla neex na dégg ndax nitu yàlla bi day ñëw pour rawale diineem rawale pas-pasam dem dagg ca àll ba toog fa di jàng alquraan di jaamu yàlla di jëfe-jëf santaane yàlla bi moytu tere yàlla ñu xëy barke alquraan yaag barke turu yàlla yaag sell teem ak njubam yàlla def ci moom barke ak leer adduna bi yëpp di ñëw di ko seet si ñu dama dem ba ku ne bëgg am kër ci wetam doom ji nga xam ni judd na ci waxtu woowu fekk barke bi ñëw na leer gi ñëw na fekk ñuy siyaare woy juram di ko simmil mbaxane di ko làmbal addiya moom xale bi mu judd ci te jaaragul fi woy juram jaara waaye xëru nit ku ñuul tax na boo siyaaree góor gi jox ko addiya ba noppi soo génne ñu ni la kii mooy doomu sëriñ bi nga raay bopp bi tàllal sa loxo ni ko ñaanal fekk na sax mokkalagul faatiha nga làmb sa poos jox ko addiya mu naan ce que kii mooy doomu sëriñ bi xale bi judd ci loolu te bàyyi bi demul rawale ju ko pour mu jaar fi mu jaar su fa màggee buur lay doon mooy du xam lu dul solu taalibe yi bàyyam ñëw jox ko addiye mu jaaxaan tàllal loxo mu ñaanal leen te xamul dara buur booba nag ka muy jur yi moom ëllëg yéefar lay doon bu defee nag kon nga xam ni li mu wax ni njal biin ga yàlla yi kese lay doon digg ga nguur mujj ga kufru yan nañ ci yàlla musal moom la alquran di wax naan fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaat wattabau shahawaat فسوف يلقون غيا موي لم يوننت يالا انت يالا ابراهيم عليه السلام انت يالا اسماعيل آه، اك ني ملني نيوم دي لين لم دي لين لم دي لين لم با موم يالا سبحانه وتعالى مو تاغ لين غرم لين واخني سين لب جوخ ناني مكو موني وايي مالهوريزمان نك فخلف من بعدهم خلفه mu ni ña ña ña leen ña leen wuutu nag ña leen remplacer ci seeni njaboot nag abaaxu salaata dañoo couper sama digganteeg man sama seen digganteeg man dañu couper seen digganteeg man ndax salaat mina sila muy baat bi firi communication walla jokkale sooy julli rek yaa ngi communiquer yàlla mu ni ñom nak bañu dikké mamak li daan tax seeni i maam ak seeni i bay daan jokkolok man di communiquer ak man te moy julli mu ñu dañ ko sagane wattabu shahawat top seen banexu bakkan lek gu neex naan gu neex sañse wu folklore waaye yalla neena nak na fa sawfa yalqawna ghayyan na xayyan toroxte gu metti mo cey top ko defé nak la waji wax ni kon lo gis dafa am ciosan bu ñu démé ba nit ñi bëgg fàtte cosaan ba fay jaadu ñu fatali len ko tax mu ni usulu tariqi alqawmi ahli alxaqiqati hudaati alwara almahdina min xayri millati mu ni sufyan sufiyankew bi nga xamni ni tax ñuy waxtan tay ñu ciosan ba nga xamni ñaka ña ko yore woon mooy ahlul xaqiqati nit ñu sel ñi nga xamni ño demone ba ba sélectionné ba tànn li ñuy wax alxaqiqa xaqiqa mooy mooy mooy réalité essentielle nee na ba tënk ca seen bopp nee na ñooñu nga xam ni ñoom ñoo ñoom la yàlla jagleel ñuy orienté jaamu yàlla yi pour ñu dem ci yàlla lan moo leen ko may parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen orienté ba ñu xam li baax ak li bon kon ku ñu orienté wul ba nga xam lu baax ak lu bon boo mën orienté keneen muni ni cosaan ba mooy an anfaasin mooy sellal bakkan wa sidqu mawaddatin ak dëggu ci sa bopp nag cofeel di nga wax ni moom nga am ci yàlla ak bëgg gi nga bëgg yàlla ak dem bi nga bëgg dem ci yàlla subhanahu wa taala mu wóor la ni dëggu la ci yow dafa dëgg ci yow nee na boole caag nag wa xidqun ak li ñuy wax ñaw xel xel xel mu ñaw xifqun wa aadaabun ak ay teggin ndax yàlla subhaanahu wa taala teggin mooy tax nit àgg ci moom Mawlaana Cheikh Al Hadj Malick Sy radiyallahu nga jaamu yàlla lu dugal aljana waaye nag pour nga gis yàlla nag dem ci yàlla nag mu teggin moo la koy may wa tajridu himmatin ak yitte mooy li ñuy wax dekk yitte volonté waaw volonté dana sayid cheikh ahmad tijani radiallahu anhu daana wax naan himmatul insan qahiratun ala jamii l akwaan nee na volonté doomu aadama nee na moo moo not moo féete kaw mboolem monde yi nee na bu sa yitte àggoon ci ni nga ne balaa ñetti fan dinaa xam fu yàlla nekk toog nee na bu dee dëgg ci yow rek bala ngay bàyyi yàlla fekk la ci law taallaqat himmatul mar bi ma war al arsh la naalatu nee na bu sa yitte àggoon ci ni la ca gannaaw arsh la bëgg balaa suba ma xam lan la nee na buy dëgg ci yow rek balaa suba nga xam lan kon volonté walay wax ni la kon tëdd di nelaw du maye yàlla soo bëggee bëreeg sa bakkan bëgg defaru faw nga sacrifier sa bop motax ñom ñu di leen tuddé ñi nga xamni ni dañoo sacrifier ci dund pour jot ci yàlla subhanahu wa taala motax waje way leen ni baytul wilayati qasamat arkanahu sadatuna fihi min al arkaanahu ma bayna من wa ما بين wal واعتزال was sahri والسهر al ghali muni tasawuf ñi ci sóobu ñëpp te benn objectif la ñu am te mooy dem ba toog ci siège wilaya siège wilaya mooy lan wilaya mooy dema dem ba sa lépp yàlla subhaanahu wa taala méngoo ko xam ne yàlla dootul gis sa dara lu ñaaw foo dem yaak yàlla loo wax yow looy dégg yàlla looy gis yàlla lépp sa lépp yàlla ñu ni lan moo leen ko may ñu ni ponk yii moo leen ko may maa bay na somtin dem di sellal seen bakkan di sellal seen bakkan ba yàlla di leen fa di bàyyi fa nit ñi di leen déey lu mu dul déey nit ñi waaye ñu noppi lu jafe la dama dem ba yàlla xamal la lu mu xamalul say morom ba noppi nga noppi ku toogul ci wilaya bu sell doo ko mën ay wax sax ni ñàkk teggin lay niru léeg-léeg ndax comme yàlla moo la bind bind say nawle su ko neexoon mu informé ñëpp ñëpp xamandoo ko waaye la tax mu bàyyi leen fa wan la ko mooy daf lay wan ni la du pour ñëpp kon yow soo bëggee yàlla wacc fa ay nit xamalu leen ko yow nga bëgg leen ko xamal yaa ngay weer secret yàlla subhaanahu wa taala moo tax ñu lay xamal ngay noppi nee na ci ponk yi la bokk ñu ne waxti zalin daimin yar sa bopp ba nekk ci biir nit ñi te nekkoo ci ñoom ca la bokk bul nga dem tëju de waaye nga defar sa bopp ba nit ñi duñ la yóbbaale ci seeni doyadi duñ la yóbbaale ci seeni yu suufe donte yaa ngi seen biir subaak ak ngoon yaa nga fa waaye nekkoofa fa ku la gën rafet jukko rek tiim la wal juuxi nee na ñame xiif ñame xiif ndax bakkan li mu bëgg rek mooy borom fu mu toll mu ngi regg te seetlu ko booy regg rek dootoo sawar jaamu yàlla gëmmentoo cay topp tax yàlla subhaanahu wa dañ ko ne yont yàlla isa ak yaayam am na ñu ni yàlla lañ yàlla ni kaana yakulaani taama dañu daan lekk ñam bu defee la ca des xel doomu aadama moo koy àggale ku lekk ñam gëmmentu te ku gëmmentu nelaw waaye moom yàlla ba ñu koy wax nag waxul ni man duma lekk waaye dafa ni laa taaxuzuhu sinatun wala nawmun mu ni duma gëmmentu ba nelaw di ma ci fekk kon firi na ni du lekk kon soo bëggee say nelaw di néew del wàññi sa lekk ay biir moom saa yu feesee rek borom nelaw kon ñeme xiif wa sëxër ak ñeme ñépp tëdd di nelaw nga jóg yombul nag ay waxtu woowu nag ci la yàlla séddale la muy séddale waxtu woowu ci la yàlla subhaanahu di séddale la muy séddale su ko defee kon ñu xam ni boo ponk yi mooy ñeme xiif ngir not sa bakkan seet lu ko weeru koor ci ngay gën a sawar jaamu yàlla te boo xiifee ci la sa faculté intellectuelle di gën a ubbeeku ci ngay gën a xalaat donc looy def ci nga koy gën a jekku moo tax ñeme xiif ñeme mar ñeme ñëpp tëdd guddi di nelaw nga jóg jox sa bopp yàlla yàlla di la xamal ngay noppi boole ca boole ca ak defar sa bopp ba nekk ci biir nit ñi te nekkoo ci يالا سبحانه وتعالى تاج ينتبي صلى الله عليه وسلم في القران ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك تبارك الله شان الخالقين كن تصوف ميغي نونو تبارك الله ليغا خامني موم لا نيو جاغلالون وقتان يو سي والو وقتو دا فا ملني ميغي جيم سي والو جيخ ميغي لين دي سانت بو باخ di leen gërëm tabaarakallaahu di sant nag suñu technicien bi nga xam ni moo nekk ci machine bi. Makhtar Dieng Ndiaye. di sant waa kër gi. xaaja ñimma ba tabaarakallaahu sunu wëllëre sunu séddoo xaaji bàcci Ndiaye. di ñaanal Thierno Hamidou Yoro ak mboolem ñi mu àndal ca ziyaara ba ñu dem ca Mali. yan na leen yàlla gunge zahaban wa iyaaban yàlla defal leen tawfiq zahiran wa batinan tabaarakallaahu ñu sant mbooleem ñi ngi doon déglu ci Safina FM 98 point 2 ñaan yàlla nañu yàlla defal mucc ak muccule defal ñu wér ak wérle defal ñu dund ak dundule ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci toogoon ak yéen ci daara ji nekk ci micro bi di wax ak yéen moo di seen mbokk di seen wëllëre di Abdoul Aziz Fall tabaarakallaahu yan nañu yàlla may nu fekkee lu bare bare bare bare bare ko defé ñu mëna àggale waxtaan wi wa sallallahu ala rasul wa ala ali rasul wa wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh